comme euh, ni ngeen ko xamee Touba mu ngi doon mu ngi enregistré woon premier cas le 10 mars 2020 euh, depuis boobu ñu ngi doon am ay cas mais pour préciser ko ne première phase boobu c'était vraiment un cluster maanaam benn famille la yemoon demoon nañ ba daanaka fay foyer boobu parce que amatul woon benn cas toog nañ fukki fan wala lu ëpp sax fukki fan Touba amul woon benn cas bi mu commencé bu benn cas communautaire commencé fii ci marché Ocass ci la cas yi tàmbaliwaat di génn di xaw a bëri ci askan bi mais booba léegi ñu ngi taxaw di liggéey di xeex mais ànd ak ak askan bi ànd ak ak partenaires yi yëpp ba tax na tey gi nii mun nañoo wax ne pratiquement depuis bu mu tàmbalee ba léegi toll na ci ay environ cent cas yu ñu am fii ci biir Touba cas positif mais cas positif yi. dañoo am ñaari kuréel am na ay cas yoo xam ne ils maanaam yëguñu dara seen yaram ñoom ñu ngi leen di suivre actuellement ci seen biir kër am na commission boo xam ne chaque jour ak infirmier yi ak sage-femme yi ak relais ñu ngi leen di suivre seen biir kër euh, environ 90 environ 80 voilà mooy ñi xam ne am nañ doomu jàngoro bi mais jàmbatuñu dara am na cas yoo xam ne tamit soit ay mag lañu wala ñu ànd ak yeneen xeetu feebar ñoom la ñuy traité fu mu toll nii hôpital Matlaboul Fawzeyni lim boobu mu ngi toll ci environ treize. aux dernières nouvelles treize yooyu nag du lu ñu war a jàpp parce que léegi léegi ci biir treize yi mu am ñu wér léegi la mu am ñu ci yow